Omar nuyu nañ la. waaw ah, fay nañ ñu mosuma xam fay nañ ñu sant waat. lay ziar bu baax. yàlla nangu ziar. waaw ndam neex na de Omar. non mis dañ ndam nag yow tamit mis nañ ko de wax dëgg yàlla xam nañ ñu muy sant. waaw tey ñu organiser mag si diggante parcelle ak géejawaay noo ko jàngati nekk lu rafet nekk lu sénégalais yi mën a di seetaan jëlee ci expérience jële ci wane na sport day boole wane ne tey lu mu metti metti muy ci wàllu làmb ñu yëngu ay génne lañ du ñu mayante dara mais bu jeexee yàlla suñu borom dogal na ne ñoo ko ndey ñoo bokk ba loolu la. bari woon lool souvent bi ngay wàcc sa combat lii dafay firndeel na géejawaay benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar sa digganteeg laaj ngeen ngeen daje. waaw ñun ay nitu coow lañ na xam ne boo nee géej boo nee géej te ñu ci teg géejawaay fala géej gi nekk fa lépp di xewe donc wane ne daal sport ay nit ak nit bu ñuy ànd même bu dara amee tamit yoonu kenn néew ci mu naam wax mu naam mais xamante nañ suñu biir quoi donc vraiment fii jàmm rek moo fi am gis nga fi la déggee gis nga fi guy gi gis nga fi Aliou Seyde gis nga fi Abdou Diouf a mam sa kees ah ama seen signor Gabar si ah Marley mbër yëpp a ngi si ñëpp ñii kii waalo lañ te maa ngi nii toog fii donc ñoo bokk nday ñoo bokk baay vraiment nekk na lu rafet daal. est-ce bi am diggante Guédiawaye ak Parcelles ñu koy xalaat diggante Pikine tamit ak Guédiawaye. mais na ko ñëpp xalaat ah parce que tey war nañ mën a bëre tey écurie bu nekk bul faale tay Chinga écurie Pape Diop écurie Falaye Balde. jàmm gën ñëpp war nañ ko mën a xalaat parce que jàpp nañ ne te sport la muy boole bu combat amee ba mag bu jeexee kenn ku nekk war na mën jëli écurie football ak ñoom donc war ko ñëpp mën a xalaat face ak lépp war nañ ko mën a xalaat. Balla Gaye lii ngeen def ci ak Fass lii si boppam nga waaw dañuy sant yàlla nag xam nga tey jël naa stade bii ko ba mu fees ma bëre daanu gisoo leen samay supporters ñu yàq say seize wala di daj ay seize dafa yam exemple boo xamante ne yéen yéen a koy wax di ko jàngate ñi ñi ñi ñi si teg seen bët gisoo leen gis supporteru Balla Gaye de xeex wala ñu ne daan nañ leen ñu ngi débordé wala daanu ñu leen ñu ngi débordé te dañuy diw stade ba mu fees dañuy jël exemple ci ñi nga xamante ne jar nañoo jël exemple loolu képp ko koy def arrangé wul mbër bi arrangé wul promoteur bi arrangé wul amateur bi arrangé wul ñi ñëw di ko support ci seetaan képp ku koy def nañ ko bàyyi gis nañ combat bi paase moo mujjee bëri gis nga supporters yi yàq nañu dajji nañ mais loolu amul sens amul benn njëriñ ci mbër bi lay dalaat ak amateur te loolu nekkul lu rafet kenn rafetlu ko muy bu dee man maa koy def heureusement def ma ko nag alhamdulilah samay supporters bëgg nañ ma ànd nañ ak dal ba lépp lu am rek dañ koy sante suñu boroom moo tax maa ngi leen di sant di gërëm di leen remercier ci lu mel noonu. mais Balla ñu ñëw bari am na lu ñu amul lu ñu fiy ak lu ñu fi defaraat man daal lenn moom xaw a jaaxal ci li président CNG wax muy Bira Sène en tant que njiit ci en tant que njiit nekk président de CNG kon kaw Gris Bordeaux lu mu wax ne ñiy kagule dañ leen a war a dindi waruñoo ñëwaat ci làmb nga taxaw immédiatement accordé loolu man loolu dafa maa jaax dafa maa bett ci ay kilifa Bécaye mbay wax ko donc loolu nekkul lu may rafetlu nit moo xam ku munti doon ñun du ñu indi làmb ay agresseur du ñu indi làmb ay nit ñu bon lu ñu indi làmb nit ñoo xamante ne dañuy def ay bomb kon ñoom ni ñu ko waxee xalaat dafay rafet wax dafay rafet mais Balla Gaye pour man jàpp naa lu mu indi rek ñu ne baaxul mais nit dangay jéem a créer ñun dañuy defar làmb mais yàq làmb ñun dañuy dundal làmb di dundee làmb kon nag lépp lu nga xamante ne Bira ni mu ko réagir ne loolu mu ngi ci règlement bi man dafa maa bett ci kilifa waram xel di xalaat nit ñëw wax la nga war a taxaw segg keneen ñëw dina la waxaat nga war a segg non ñun duñu ay hypocrite duñu ay nit ñoo xamante ne dañuy def lu bon mais en tant que nit bu ñëwee wax la da ngay déglu keneen dina ñëw wax la déglu parce que moom loolu da ko moom mu wax la ko rek nga bëgg a dindi wala mu déranger la nga ñëw apprécier ci loolu loolu képp ki nga xamante ne rek mbër nga wala keneen ak keneen man loolu dafa maa jaaxal te ay ree sax la ma def kon moom waxu Gris Bordeaux moom lay déglu waxu Bécaye Mbaye moom lay déglu c'est honte loolu dafa garaaw. mais lan lañ ciy xaar ci Balla kon ci wax boobu te loolu ta neexu la. non neexuma neexul keneen ak keneen bu fekkee nit day woyu wax rek. yow nga apprécier ci moom ci lu mu wax ne dëgg la dañ koy dindi kon njiit amatul waaw man loolu laay am lu may wax ci moom waaw.